هل في الورى من سك أن المصطفى ورث القديم ولاية دم دباي هل في الورى من سك أن المصطفى ورث القديم ولاية دم دباي فالمصطفى ورث القديم بفضل عين وبجوده وسجامه دمه دباي فالمصطفى ورث القديم بنوره وجماله وجلاله دمه دباي فالمصطفى ورث القديم بسره وبعلمه وبعلمه دمه دباي فزتم بكون المصطفى قد جاركم قد ساركم ما أعنه yéen waa kajoor kañu leen bu baax war ngeen a kañ ngir Mustafa wub lambi Mbàkke jawaa walaay yaa ahla ñaaqeen ñaaquleen Seex Mustafa ñaaqat ni bi kalaamihi doom moo di baay yaa ahla ñaaxeen ñaaxuleen Seex Mustafa ñaaxaat na leen bi kalaami doom di baay Jurbel bu leen jërëfal ndaxam Seex Mustafa ñaagaat na leen bi kalaami soga ñaagi ngaay yaa ahla baakul bakkuleen ngir Mustafa bigalat na leen bi kalaamihi am ngeen na jaay daarum ya mooy tuuba wa husnu ma'aabihi ku fa mënta dem na siyaare ñaaxeen mbaate ngaay yaa ahmadu nu muhammadin li muhammadin yawmal qiyaamati sant leen sunu waaji waay seex mustapha àndal dal nga xel wammat nga ruu yi fi yëgguloon jébbal sa wammat nga gumba yi boot la yi tegal fanoo góor jigéen yaa di jox ay canga ay ku daw nga dab ku fay nga fay li te doonu fay mboolem jirim yeeg baayo yi yaay seeni baay yaa nuy dërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay yaa yor teraangay mag ña Bamba yoraale woon moo tax nga ba jàll saalum jàll xaay ngir jëm si Amadou Moussa na ñëpp yegg suuf na ñëpp yegg suuf ngir jëm si Amadou Moussa waaw ah. Amin Mbacke Cheikh Moussa waaw waaw ñu dégloo tuuti kaddu yu néew nag kaddu yu néew Cheikh Moussa Mbacke Cheikh Moussa Fall Falilou nee na sëñ Fallu mii di bëgg a wax ak yow daa xamul wér gu war a waxe ak yow de ndax day am koo xam ni bu lee dundee lee dee day am foo xam ne boo ko fa jamee du ko yëg waaye yow nag Mbàkke si léppay dund moo tax nee na ku la bëgg a jam te bañ nga yëg ko dana moytu ba tàyyi nee na fi ñu koy tàmbalee mooy liggéey boobee nga doon liggéeylu muy tool ya nga doon ruujlu dafa am kàddu gu sëñ Fallou Fall mi waxoon jëme ko nag ci sa taalibe ba muy rakkam ja di doomi sëriñam muy sëriñ Seex Ndigal Fall mu ne ku sa yaakaar ne ci sëñ Modou Aminta Fall boo xëyee fekkal sëriñ Seex Fall ca tool ya ndax sa jëm ji Seex Moustapha nee moom mii di jëwriñam ba mu ñëwee ba fekk la fa ci turu sëñ Fallilou jëwriñam nee na waxtu ba mu jug xare ba kon ne ko ne xam na ni yow mosoo wàcc guddi mosoo wàcc bëccëg ndax ñoo daje nag ca kër ga far ca boobu bëccëg na lool Cheikh Moustapha Karim bari na ñoo xam ne buñ masaan a xëy bëgg xool ci xoolukaay yii xooluñu ko ngir dara lu dul. musaa sa jëmm ji Cheikh Moustapha al Karim ndax bis boo xëyee ànd nga ak waa waar wa loolu nag di bànneex boo xam ni murit yi ñoom doy na leen aw ñam doy na leen ak naan kon Cheikh Moustapha Mbacke sëñ Falilou Fall nee na li nga bëgg Cheikh Moustapha yal na nga ko am luñ ci teg loolu amuñu ko ab jaam daa mëntu weesu mu am la bëgg Mbacke kon ñaanal ñu Mbàkke jërëjëf nee na xolam baax see Moustapha yàlla na leen yàlla dolli kartan te wéral leen dolli xéewal yi ba ngeen ba ngeen gën a mën a jekku ndigal ci darajey yonent bi darajey sëñ Touba ak seen darajey maam Cheikh Ibra Fall bisimilah na ñëpp nangu ñaan na daj àdduna bépp jërëjëf Mbàkke jërëjëf win Mbàkke nan la fekkaat at yu bari lool ci lépp ànd ko wér ci sunuy xol lañ am amin mbàkke amin mbàkke barke borom tuuba wara man sakka anna al mustafa warisan qadima wilayatan dommu di baay شك أن المصطفى ورث القديم ولاية دم دباي فالمصطفى